salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. Lathioum maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. maa ngi ziar réew mi. di la ziar. di ziar Sénégal. Mm-hmm. ñëpp maa ngi lay ziar waaw. di ziar waa euh, ANTV. Mm-hmm. ay ANTV sa kaw sa kanam waaye. sa kaw sa kanam waaw fi nekkee ba tey lu feeñ lu lu nëbbu dana feeñ. waaw mm-hmm. di ziar ñëpp. sama réalisateur. Bonaama laa fa da yara. xale am jom. Mm-hmm. xale dégg taa. xale pare. xale waaw. xale pare xale pare. ñëpp koy waaye yaa ngi fi. pare na pare na pare na pare na pare na parana ko yori yakam parana di siar ñep mm-hmm. wa mm-hmm. di siar sama gaay sa koñ sama yori waaw ko ci mel yu mbappé ñu koy siar waaw ko delo sama waaw mu ma am bu ma ci siar yu yu nan day day dama ko nak wa ñu ko seen doomé ram bi ñu ko seen non day liggéey ah bakké borom daru jaay li ko waaw xëy ko tu waaye laaj mu jox la daal bi ko daal bi sëñ ko bëgg na kaldu ci sama la ko daal bi yàlla xam ni sama kàlla am nga liggéey moom it di yéy yéy yéy dugguma si ah ak kàbbu dooleelaan bi moom bu demee géej. tey suul loom naaru def ko sa pari foot. raam laa wax li ma gën a metti nag du liggéey du liggéey. li ma gën a metti nag. waaw. dama koy wax. waaw waxal waxal lu ci waxal. Babacar Mbengue. waaw mooy mooy mooy mooy mooy media bi.

Euh, mu demee ba loolu gën a xew nu mu tudd tàkkusaan euh, tëgg sabar day ñëw. kon ràcc kon da ci dem. maa la ko wax ràcc seen ñëpp la de lépp a sàmm lépp lay dem. waaw kii mooy gouvernement Macky Sall liggéeyoo liggéey liggéey waaw ñu xaar indi nii social liggéey liggéey moom dafa waaw indi ay ay tabal kajoor waaye Euh, lu jéem a boroxam lu cum waxal ma saa yi loo ko xaar xaar daal si gëm boppam moom kan saa yi gëm boppam yaakaar naa gëm kajoor la waaye gëm boppam kajoor kajoor la la wax euh, takkotéer gëm boppam Macky Sall laay njëkk waaw Macky Sall daal waaw moom nu sa yoon may voilà merci sa yoon nu mu def sa yoon Macky moo ñëw dëkk waaw moom la barke borom daaru Ndiaye bu ma la waree baax yàlla bu ma fanaan. moom la mu toor moom. barke borom daaru Ndiaye lu ci xam ne lu ci lu jël sa lu jël sa baat dëgg lu jël sa gémmiñ gi dëgg la. loo wax dëgg yow dëkk ba yërëm toll. waaw temps yii ndeysaan yorut. yorut fëgg jaay kolobaan bii lay sol suufu pont. wallaay waaw sama kanam foofu da ngay toll fee xet bi dina erreur bii ñëw. mu leer na li kolobaan la ñu. sama kanam moom sama kanam moom. yaa ngi dégg sama kanam moom. ñëw ne bu ngeen ma fotel xam nga nag ñoom ndeysaan ndax sénégalais yi da leen a nax de bu ngeen ma fotel Bambay Ndiaye Touba Tour Kër Gànna. waaw ah. danaa ko defar. xoolal ma nga bàyyi ko promotion seen bopp yi na ma yàlla baal. kay monsieur Maodo ñun daal ñun daal la suuf. merci beaucoup nañ tubaab daan def noonu. bu yaayee borom tund yi wër dëkk ba ñëpp a ñëw. Kër Madou. men Njaxate. Njaxate Daaru Kañ Kër ma Xuja Kër ma Kumba Kër ma Xaali Looyem Cagal. mbaaxe samsam tëgg. waaw gol bi gol bi tëgg. xoolal ak samsam ordinaire bi. waaw ñëpp a ñëw njëriñ kenn desu. foo sànni mbàtt mu toj. ndax ñu teg ñu dil nag Macky Macky tax mu gañe waa dëkk baa tax mu gañe dëgg waay keroog mbooleem ku amoon fas ak nag waaw fas sax dañ doon voté kaw daa daan téléphone te dëkk bi bàcc ci borom daaru ñaar léegi Macky mu mujjee mu mujjee génn loolu laa mais yoon def bi la barki bi bu la ba borom ñaar ba la te li boo ko waree dee. waaw boo fa amee vendredi moom sax. te li bàyyi moo jaar si sukuraat. te li bàyyi si moom ba yow sukuraat moom. waaw ku bañ a bañ a li sukuraat di métti métti ku fa bañ a jaamoo. waaw awal ma am mbay maa ko gaar. kon yéen loolu sukuraat faatu ngay def. kon léegi bu la paatee jàppee rek. kon léegi booy togg ceeb bu xonk jarul kii boo ko sinee trois mois da ngay jël. da ngay jël ceeb bu xonk. ceeb bu xonk kon loolu tamit dafa tudd léegi doo ko jël. doo ko jël moom. jël ko sax ndax ndax ci bët doo ko laal barke Serigne Bamba nii la na naxe ba nii toog liggéey nag defoo bu dee yaa ngi dégg raam-raam ko noonu la ay macha allah piccee deux ba fi ba fi ne raam-raam noonu la mel fi ne nii ngay wax na nii yow këri golo la nga am ak fii la xarit daal golo yi sax mu fay moom mooy ba raam-raam ba am gàllankoor ko. ndeysaan bàyyi ko bàyyi dem si yàlla si keroog ba ma koy wax moo téewoon micro. waaw waaw naan ko ma koy xam nga lu ma ñor xam nga booba mi ci sa xam nga lu ma ñor. Mhm. ndax maa ngi koy yoo xam yoo xam anamu tay anamu tay seey na waaw saafu na fekkewu ko makki makki sali bi du ñuul makki na gës dëkk na gës ñuul la na gës waaw waaye daal mhm. temps yi nag li xew si dëkk bi yëngu lu ci xew lu cum yooyu yaa koy dugg sàcc sàcc na da ngay jur ñu sàcc waaye nag Sénégal la ñuy juree faaw ñu sàcc njurum xaj la ñuy jur dafa nar fi ne nii njurum xaj la gaa yi jur xam nga xaj diis lay jur bi dafa ndànk lu cum dama ko sàcc te dafa nekk xaalis yow loolu ko jëmoo loolu bi de def na si man quatre ans te kenn jël fi nit la ñuy sàcc leen nit rek na ko barke borom daaru Njaay sacrifier élection yi jub see tax ñuy sàcc ba ne politiciens yi yónni da ngay wax financé jalo xaalis dañ leen ma boole nga dem wëri gone ñëw ga lu ñu la mu saw dag sa jéega daal yóbbu boole ci bagaasam day fal affaire ko ana ko affaire sa ko fi ak doon ma formation nga fa ko parce que lu lu ci lool ma sen ma sen dafa ndans la jëm de udah la set formation mom dana ko dama la dama la sen man ci borom daru njaay dana la set ma sol tanga bëgg na xam formation mom dana ko tanga bëgg na xam réew mi metti metti waaye am nga sa ngor rek àndal ak sa ngor. ngor gi laa mën a tudd téye. àndal ak sa ngor damay doon faramason de. àndal ak sa ngor. billaay walaay àndal ak sa ngor àndal ak sa ngor. waaw xam naa xam naa ne ma barke yeneen bi du ma ko ñëwee jaaxal xam naa ne ko àndal ak sa ngor rek te patiente la. Ah, léegi ngor ba tey ba biir bàmmeel. patiente wu patiente ah, waaw dama la laaj loolu patiente ba kan. patiente wu léegi ba kañ da nga naan àpp bi nii la. ba kañ dafa nangam. léegi yow formation boobu noonu de waaw boo ci dee yàlla ñu lay gën nii rek teg di dugal ci sa ah? yàlla yàlla yàlla bay sa tool ajjana amul kuy wax xarit jeex na fir ndaw si nag laa jëm ajjana fir ndaw si. ajjana bokkul ak kii jannatu jeex na bokkul ak boîte nuit ñi ak dugub bi. voilà foofu sax sax aéroport Blaise Diagne bi. waaw boo ma boo ma boo ma dama ci mel boo ma dama ci mel mucc ma may ma ci aéroport Blaise Diagne bi. oui yow avion yi avion yi léegi bu ndiiree bu ndiiree xam nga boo demee ba gis bukkee gaynde di tiit nit ñi dem avion yi mis nit tiit décollé Euh, wuy ma kii la dugg ci biir kër yi gaynde yeeg kii dugg ci kër yi. da ngay wax di làqatu ci loolu dara barke ma doon dara ja barke bu ma ko jëlee caaxaan yeneen ci bi moom ci géej la ñu dugg ci rondaay la ñu dugg biig biig biig ci mujj biig biig la ci mujj biig loolu la loolu la avion avion kii bi avion macron bi avion macron bi laam na damm bi muy ñibbi bi muy wàcc kon jeex ba dayee toj na bil boo xooloo defar bee baax ta ta macron yi muy ñëw sama fekk maa ngi tëdd sama néeg nees kii bi décolle pour ñëw gaynde ga doon ci biir naka ma daw dugg ci noonu fekk fa gaynde ga mu ne ma la dugg nag dañ dugg bu loo xam ne yow euh, de yàlla ah? lu tax parkaan fa lu tur waaw xam nga tax bi ngeen bind waaw lu ñu ñëw te def maa koy tew lu ci maa la ko ah? gaynde yi bu ñu fi ñëwee ku koy tu nekk yaa ngi sant gaynde ma dem fa gaar jamono ma dem fa gaar jamono euh, yaa ko ci yaa ci gaynde man man man la embauché la embauché ay da koo Blaise Diagne bi waaw gars yi dañ ne ma wax ni ko ne ko Blaise Diagne ma leen Blaise Diagne mérite na lu ne koo xam ne yow yi Blaise Diagne xam nga Blaise Diagne kan mooy Blaise Diagne lu ci kan mooy Blaise Diagne yow yow na ko hmm. kan mooy Blaise Diagne lu ci Blaise Diagne waaw lu nit ku ñuul di njëkk am si àdduna moo la ko njëkk am. moom moom jaajëf. Gara ABS Diagne. ministre daa jàngoon nag ak lu nit nit ku ñuul mos njëkk a tekki si Afrique. moom benn stade maa la wax. ndeyam na génn. temps yi nga xamante ni Cheikhul Khadim. waaw rabi yàlla taala amu. borom bu waa jaari waaw sëñ Bamba waaw. tubaab bi bu ko jàppee déporté ko Gabon. waaw Blaise Diagne daal yóbbu yóbbu yére yi daal ko ko fóotal. moom Blaise Diagne moom. maa la wax. moo tax Macky Sall gàcce nga alaama. kontaan naa si waaw moom foofu kontaan naa si yow. kontaan naa si yow kontaan naa si yow. mais nag loolu la ko nag. yàgg na ko woon def waaw. moo daan foog a sëñ bi yére yi. waaw moom la dégg sëñ Moussa Kanaan belee sa foog yére yi yóbbu lu duma. yóbbu lay walaay sa kër commandant yi. lay walaay lay walaay. mu ne keroog belee sa rootal na Bamba xaan. lay walaay ànd ak ma seen. ah lay walaay naan ba maan. cay lu cum jox na ko fa biir ñu ànd. lay walaay. Mbola Kenda Bamba Gourou Moussa. laay walaay la tax mu wax quartier Ama Bal Sassi. laay walaay Bamba Dieng Bamba Ama Dieng Sassi. laay walaay waaw. Doudou ma may ma ko tukkulal moom Doudou ko def. laay walaay moom Blaise Diagne moom Blaise Diagne moom moom Blaise Diagne parcours. moom Doudou ko def moom Blaise Diagne parcours naka la. parcours yu nit. looloo tax ñu tudd ko aéroport. moo tax aéroport. waaw. mérito loolu delloo la. mérito na ko. ñu ñëw si dooneraam yi si dëkk bi. mérito na ko. maanaam gone yi jigéen ñi. waaw ñuy liggéey di di di kii. waaw dooneraam yi si dëkk bi. naan si wax mu ne jigéen ñun dafa ah waaw sa waay bi nga gis gone koo xamante ni sa waay bu la rombee ba bu wéy ba nga ci nga ci lu ci sama gone gi nee la dama koo seet waaw man ma tóojal weeni nag moom waaw maanaam boo marakana wenn wenn day day bëri marakana fees na loo ci wax kay am day fees a sept tonnes cinq cent rek bu ko may balax

nga xam nga man bi ma juddoo mère bi daa feebar. waaw 3 mois yi. daa tàmpon euh, laa tàmpon léeg-léeg nag man loolu ween Cheikh Baye ma jot. waaw sax papa li ñëw yàq. man ko fii ma nekk ab sandarma. sandarma wala bu roogoo rek. mooy yow man gannaaw bu ko tooyee ba bopp. temps moom ween dafa am importance da nga koy téye sax sax mel ni que sa mbuusub caagri. waaw ah mel ni ku dagg sa mbuusub caagri naan. kele kele maa tudd jam ñaajo bii de. am na yoo xam am na yoo xam ne comme. sa tonam ak am ah, am na yoo xam ne comme faset. ñu tàggatoo nag looy tàggatoo. waaw tati nii rek. ah waay waay waay. yaa ma yaa ma cukku de. tàggatoo waaw yaa ma cukku. tàggatoo yaa ma cukku. <laughs>